juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili ci télévision Futur Média dalee leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ndox mu bëri bi wàcc ci diwaan ji jamono ji dinañ ko waxtaanee ci lu bëri ci biir xibaar yi rawatina fële ca Mbambilor nga xam ne rek benn tout tànk wala sax ñaar kenn ki am fukki at ak juróom keneen ki fukki at ak benn ñoo fa lab ci benn dëkk rek ba tax na waa sapor pompier sax ñoo fa ñëwoon jël si néew yi ci biir xibaar yi dinañ fa fekki suñu ndaw Seynou Thiam bi ñu fa toogal ci diwaan ba. ci biir réew mi tamit jàpp Saalum dem fi nga xamante ne rek mooy Ndoukoumane foofu tamit ndox mu takku moo fa wàcc ba tax na rek uh, ay kër ak mur yu bari daanu nañ fa yoon yi moom bëri na ci yoo xam ne rek kenn mënatu fa aw jamono ji bëri na ñoo xam ne dañ leen jëlee seen dëkkuwaay rek wutal leen feneen fu ñu nekk laata ñuy mën a lijjante mbir mi. bu ñëwee ci biir Ndakaaru dem ba dikk bi xawoon na tàggatembe li ko waral tamit ndox mu bëri moo fi wàcc rek. ba tax na rek bëri nay gox yoo xam ne tey daanaka dem fa lu metti la boo ci boolee nag ndox mu bon yi bàyyeekoo ci yenn foos yi rek doon lu metti ca diwaanu Ngor moom mairie ba moo fees dell ak marché ba ba tax rek kilifa yi di sàkku ci waa ONAS ñu ñëw wàllu leen boo demee nag ak ci ñi nga xam ne waaye météo ñu ngi xam le ne rek fii ak ci fan yi tamit dina taw jàpp suba li nga xam ne aljuma dimanche ak altine ñu ngi xaare ni ndox mu takku ci biir réew mi mbokk yi li mooy ponk bi gën a fës boo leen tuuti ñu yaatal ko. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi niñ ko waxee ci ponk yi rek danañ dem ba diwaanu Bambilor foofe nag. ñaari xale ñoo fa ñàkk seen bakkan danaaw bu ñu labee rek ca benn dëkk ñu ne nag ndox mu bari bu fa wàcce mu waral li ni mel duñu def lu dul fekki suñu ndaw Ousseynou caam bi ñu fa toogal mu ñëwaat rekk ci jëye boobee Ousseynou gannaaw bu la nuyoo ana lan la mën a jàpp ci lu yees gannaaw faatu ñaari xale yooyu. Ousseynou bu dee yaa ngi may dégg. Ousseynou Thiam. waaw mu mel ni euh, jàppandiwul xam naa rek euh, dinañ doxal ba ci kanam laata ñuy delluwaat ca diwaanu Bambilor liñ ko waxee léegi ci Kaolack tamit ndox mu bëri ma fu wàcc euh, lim fa jur jëyee nag bëri na kër yoo xam ne rek dañ fa daanu ay miir wala ay yoon yoo xam ne ba jamono ji kenn mënu fa aw lool nag tax rek ñenn ci askan wi ñu ne bassin de rétention maanaam yiñ fa tabaxoon ngir ñu mën a dekku ndox mi daal solom ba jamono ji gisuñu ko Ibrahima Diamé lañ fay fekk euh, mu tegtal la ñu fa jëlee. quartier bu mel nii nga xam ne tendance bi euh, impact négatif bi muy am mooy euh, nu mu tëyti inondation bi dafay am impact boo xam ne a chaque fois moom mooy feeñ nga toog presque dix ans di ko dund te amul benn benn benn benn pas bu ñu def pour dindi loolu ñun population yi dañu am problème tey jii nag ñu ñëw ñëw fii xaaxut di photographier déeg bi ñun je nous disons que déeg bi ñun duñ fi sangu déeg bi ñun duñ si naan déeg bi ñun duñ si fóot kon cela veut dire que ne déeg bi existence am ñun fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi mais nag am na loo xam ne ci biir quartier bi buñ ko fi fekkoon sax autorités yi war nañ ko dim parce que war nañu jël de mesures def assainissement quartier bi ba nga xam ne vraiment ndox bi boo dootul ruisselé di di yàq këri jàmbur yi démb de deux heures du matin presque trois heures ba léegi ñu bëri nelawuñu ah nelawuñ ci quartier yi seen lal yi tëmb na seen frigidaire yi yàqu nañ seen téléviseurs yi yàqu nañ léegi nag booy génn sax doo am faaw bu jigéen feebaree pour mu dem hôpital problème la bu jigéen di matu fu muy jaar si quartier bi pour génn pour faju ji problème la boo sa doom feebaree pour nga yóbbu ko problème la boo ñëwee nag taxaw si national bi yaakaar ne yaa ngi poj askan wi pojuloo askan wi. Kaolack Ndangaan fu soriwul dara diwaanu Ndoukoumane rawatina fi nga xam ne mooy Kaffrine foofu tamit ndox mu bëri moo fa wàcc démb rek ba tax na quartier yu bëri moom fees dell def yoon yu tamit kenn mënatu fa jaar ba tax na rek ñu ne bëri na ñoo xam ne dañ leen fa jëlee rek utal leen fu ñu nekk laata ñuy mën a lijjante mbir mi suñu ndaw mi ñu fa toogal Oumar Ndiaye ñëwaat ci xew bi. yu am doole moo wàcc ci Kaffrine guddig bi ba léegi bu 3 heures du matin jotee ba daanaka 10 heures ci suba lu ni mel sax moo sabab quartier yu bëri ci diwaanu Kaffrine ndox ma daal fay fees dell rawatina ci quartier Diamaguène centre ak Kaffrine 2 ba sax law ba ca CM Babacar Kobar Ndaw askan wi jamono ji nekk ci jaaxle gi mat sëkk di ñaawlu anam bi nga xam ne moom lañ liggéeyee yile canalisation. no situation bii ñu dund fii ci Kaffrine tey beneen affaire la doon na loo xam ne nii foo ko mënti waxee fi mu ne nii je peux dire que ne Kaffrine yëpp mu ngi nekk andi inondation kenn mos a gis lu mel ni li ko dalee ko fi mu ne nii léegi. kii comment dirais ci hôtel bi jëm ci raay bi Kaffrine de nord Kaffrine de sud kenn xamul ci lu ñuy xëy di yeewoo Kaffrine dafa inondé totalement il faut ñuy wax ko parce que sonn nañu sonn nañu ça fait des années et des années yoo xam ne nii même problème même problème sonn nañ lool. nañ ñu dimbale te yàlla tax parce que actuellement moom vraiment vraiment lii defet la ci ñi nga xam ne ñooy xëy di yeewoo Kaffrine ci ñi nga xam ne ñooy autorité yi Kaffrine daanaka ndox mi dem na ba jël lu tolloog benn mètre ci kër yu bëri yi loolu sax moo waral ba fi nga xam ne moo di route nationale numéro 1 bi daanaka dem beek dikk bi tagga témbe woon ndax ndox mi dafa wal ba baare kaw tali bi askanu Kaffrine jamono ji ñu ci ëpp ñu ngi ci jaaxle ndaxte seen kër yaa ngi tëmm rawatina seen matériel yi daanaka seen jumtukaay yëpp mën nañu wax ne des na ci ndox mi Omar Ndiaye bu ñu bàyyi ko Kaffrine ñi dem ba ca Bambilor ñu ko waxoon ci ponk yi foofee nag ndox mu bëri bi tax na fa ab jéye am foofee nag ndax ñaari xale yi ñoo fa làpp rek ci vénide kenn kaa ngi am fukki ak juróom kenn ki fukki ak ñaar ñooy sax seen néew sapeur pompier ñoo leen fa jot jële jëlee rek li ñu def li jëlul fekk suñu ndaw Ousseynou tam bu ñu toogal ci diwaan bi seenu gannaaw ba ma la nuyoo ana lan lañ mën a jàpp rek ci xew-xew boobu. voilà Ibou gannaaw bañ la fayee fay téléspectateur TFM yëpp euh, drame bi nag mi ngi xew fi nga xam ne nii moom mooy quartier Ndiassane nekk ci booy dugg si rek euh, fii ci Bambilor euh, gannaaw taw yu métti yi nga xam ne fii taw na fi nag démb ñoom nag dañoo dëkk ci li nga xam ne lii moom mooy yoonu ndox Euh, bi ndox mi nag bëree ba ñëw dugg ci kër gi nag ci la ci la ci la xale bi daal di daal di rek daal di rëccee euh, lii di ndox mi daal di ko yóbbu keneen ki ci tamit euh, ci ndox mu bëri mi ci la daanoo ci li nga xam ne lii moom mooy mooy benn pax gannaaw nag seet yi lii di sapeur pompier ci njiitalu ki nga xam ne nii moom mooy sous-préfet bu arrondissement bi ak maire diwaan ba fexe nañ nag ba retrouver li nga xam ne lii moom mooy néewu ñaari xale yu góor yooyu kenn ki nag mi ngi am ci lu fukki at ak juróom ki ci des am lii di juróom-ñetti théâtre seen corps yi nag euh, jot nañ koo repêché lii di sapeur pompier bu quatorzième compagnie d'incendie et de secours bu Rufisque euh, def nañ lépp nag ba génnee li nga xam ne lii moom mooy euh, néewu xale yooyu mu doon nag mbir moo xam ne mi tiis na lool jamono ñuy wax ak yow nag jamono yëpp ñu ngi woon ci biir Mbambilor ñu ngi nii sax ak ki nga xam ne nii moom mooy maire Mbambilor bi Ibou Diouf ñu laaj ko rek monsieur le maire naka ngeen dundee drame bi nga xam ne bii am na fi tey famille yi nga xam ne dañu ñàkk seen doom ñu jàll leen ci turu commune Bambilor mais jàll leen it ci turu président de la république li am nag metti na metti na ndax ñaari bakken yi rot ñeenti nit am ay gaañu gaañu lu bari yàqu ci kër yi vraiment metti na mais nag bu mett bi mu li muy metti metti lépp dañu population yi dañu jóg ñoom ñëpp kenn ku ci ne bàyyi lépp loo jàppoon pour mën a taxawu jàppale askan wi commune bi jóg sous-préfet jóg au service technique yëpp kenn ku ci ne loo ci war a def vraiment nga def ko ci metti na nag metti na mais en tout cas li ci commune bi man dina ci def dina ko def gouvernement bi it incha allah suba président de la république yëpp leen na fi ñoo xam ne it ay ndawam lañu pour ñu ñëw taxaw ci wetu famille bi nga xam ne ak famille yi nga xam ne dañu nakk seen njoboot ñi nga xam ne seen i kër dafa daanu amatuñu fu ñu dëkk ñenn nañu sax commune bi jël na leen en charge ba yóbbu leen ci ay kër pour mën leen a bàyyi foofu jàppale leen ci dund ak yoo xam ne vraiment mooy taxawaay ak man-manu commune bi voilà mooy ñu bañ a xaabaabal trop ci journal bi. Mm-hmm. li ñu war a jàpp rek ci information. Mm-hmm. mooy néew xale yi ma ngi ci hôpital xam naa ne fekk suba fas nañ lañ leen a jël ngir nag mën leen a jébbal seen borom li ci topp rek mooy euh, gouvernement bi am na délégation boo xam ne bii aussi parce que ko yónnee fii nga xam ne nii mooy biir Mbambilor ngir ñu mën a ñëw taxaw njaboot gi taxaw aussi kilifa yi nga xam ne nii suba ba léegi ñuy nekk ci mbir moom nga xam ni moom moo fi xew li ko indi di taw yu métti yi bu jóg. jërëjëf Ousseynou ñu lay jaajëfal euh, ci liggéey bi dañu des a nekk ndox mi nga xam ne rek mu wàcc ci biir réew mi dem ba ca diwaanu Fuuta foofe nag euh, ci xëy nga xamante ne taw bu métti bi tax na ba askanu Sëñcu Garba nekk ci commune nu Ogo euh, tax na rek pont ba fa nekk ci diwaanu Wuroso gi jàpp Bakel ñoom pour nga jàll fa doon na lu métti ñu leen di jàppale sax fa leen fa ay giro rek ngir ñu mën a jàll jamono ji nag askan waa ngi fa ci ab njaqare di xaar rek euh, laata euh, jafe-jafe boobu ñu mën ko fa jëlee dañuy desandi sax ci axe boobu Ourossogui gi Bakel ñu ne nag am na sax ay motuwaay ñu fa jël rek ngir ñu mën a jàll loolu nag ci pont boobu gannaaw bu mu daanoo rek am na sax waa Ageroute liggéey buñ fa sumb rek ngir fexe ba askan wi nga xam ne ñoo fa daan faral di romb mën a jéggi rek dañ ci teel teewlu Ali Bandel ña dem ak dikk bi day ami gàllankoor diggante wurusu gi jëm Bakel la la ko waral nag di ab déviation bi nga xam ni ubbi woon nañ ko lépp ñeel wàllum tabaxum pont ba ca Sinthiou ba ndox yooyu jóge ca kaw jéeri ba moo ñëw kon yóbbaale lépp mu indi kon a pëccëxoo benn oto munta dem wala ñëw foofe nga xamante ni kon ay téeméeri téeméeri ndaamaar ñoo fay taxaw mu juri kon ay perturbation askan wi di ci loru bu baax a baax tey ji la nag entreprise bi maanaam technicien chinois yi ñu ngi jéem a pexe pour que euh, dikk bi ñu mun ko remettre bu baax a baax. donc mun naa nekk en tout cas disposition yëpp jël nañ ko ba yaakaar naa ne comme ni nga ko gisee dootul dagg mais pont bi dégg naa ne que euh, am na effondrement mais non pont bi amul benn jafe-jafe. bon instant bi dañoo jël euh, trafic bi basculer ko ci déviation yi et que dañoo jël nañ matuwaay yëpp pour que dagg-dagg bañ a amati comme ni nga ko gisee. def nañu li ñuy woowee radier submersible pour euh, oto yu mag yi parce que fii oto yu mag yu bëri ñoo fi jaar les gros porteurs def nañu tamit conteneur boo xamante ni renforcer nañ ko bu baax ak ay IPN ak ay IPE ba tax oto yu ndaw yi di ci mën a jaar am nañu yaakaar bu baax dagg-dagg waratu fi mën a am. situation bi la nag nu mu méttee sax jotaguñu am taw yu mag mu demee nii moo waral kon askan wi jamono yi di fëgg seen gémmiñ di sàqu ci kilifa yi nguur gi ñu farlu bu baax a baax ngir ñu ñëw wàllu leen. Ali Bandel ñaan ñeneen ñuy woote wàllu tamit bokk si ñeen ñi nga xam ne rek ñu ngi ci banlieue bu Ndakaaru jàmm gën jàpp Pikine nag li ko wër foofe nag ndox mu bëri moo fu wàcc ba tax xam na ay poteau électrique yu daanu ak itam ay yenn kër fële ci jàmm gën sax amoon na ay ñaxtu yu fa jotoon am rek ba sànnante xeer doxoon diggante askan wa ci ñoom ak takk der yi ñoom nag dañ jàpp ne rek liggéey bu ñu sombo sumboon wekk ko ci terre. bokk na ci li leen indi lay jafe-jafe Saliou Sow mu ñu teewal ci diwaan ba àndoon ceeg Asmalib Diop. dañuy jàppale mag ñi lu ne lu ñu yor rek mën a tànk ñu ngi koy jéem a tànk ndox mi ngir génne ko si seen kër kër yi nga xamante ni ñu ngay tëmb. dafa fees dell bay taw guddi du lu nelaw ba bët set. biig ci guddi ba fii na noo nii. ñu la fanaanoog ndox mi. biig mënuñoo fexe ba nelaw fii ni xale yi mënuñoo suñuy génn dañ leen di téye fii yëpp ni la yendoo dañuy tànk di tànk di tànk di ba ba bëgg a dee cité Mame Siré 1 dafay feey ndox taw yi ñoom ñoo fa bëri yenn tali yi kenn mënu faa jaar ndox ma nangu na ko yenn fiilu courant yi jaxasoo ak ndox mi tiital ba léegi askan wi fi nekkee courant euh, haute tension bi gis nga ko fële sama buntu kër la nekk gis nga ko na mu def c'est très dangereux xale yi nekk fi di fa jaar di fo ci lu demee ne ci ñoom noonu lañ ko bàyyi. lii wóoru la ak xale yi xale la ñuy yendoo teel mbir bu la teeloo seen doom teeloo seen doom teeloo seen doom. ab dërëm nag jotaguñu ko nag te bu nu jotoon tey sunu xaalis gont dem wuti fu nu jëm. ndax ay doomu aadama dong leen te po bi baaxul ñaari fan ñett mu daanu. nanu fay ngir yàlla Macky Sall. ñi nga xamante ni ñoom ñooy yeewee ci pàcc bi ci banlieue bu Ndakaaru ñu ngi leen di woowee sinistré yu bees yi la ndaxte ñoom nee ñu mosuñoo xam lii lii la lépp TER bi di train express régionale nee ñu moo leen ko teg. ñun TER bi depuis mu commencé ñun waa Zac Mbao nekkatuñu ci jàmm waaw teg nañu coono ba fu coono yem. ba inondation yi ñëwee tamit bettuñu xamoon nañu bu ñu fekkee tey ji dinañ dëkk ci ay jafe-jafe léegi ñu ngi fi taxawal ay xeer bu guddi xamuñu guddi lay daan suñu kaw xamuñu bëccëg lay daan suñu kaw na ndox yi nga xam ne mooy nekkoon ci canal bi nekkoon fii ci biir kër yi lay dugg léegi kër yëpp kenn amul ku nelaw ñett euh, une semaine bépp bu tawee jigéen ñi ak xale yi ñëpp dañuy jël seen per di génne ndox yi bëri na ci ay pàcc yu nekk ci banlieue bu Ndakaar yoo xamante ni ñu ngay tëmb ak di buuc ci diwaanu jàmm gën askan wa moom daa mer ba futu moo tax ba meram nga dugoo mujjee xëpp ci fi nga xamante ni moom mooy route nationale 1 bi di autoroute bi dañ koo baare taal fa ay pono ngir wane seenub nakar kilifa yi ba ñu jokkoo ak ñoom nee ñu taw yi ndox bi bari na waaye situation bi ñu ngi koy maîtriser maanaam géej gi du déborder. Saliou Sow ci biir euh, capital bi di Ndakaaru tamit bëri na ñoo xam ne tey noo tardé ñeneen ñi sax jotuñu liggéey li ko waral ndox mu bëri tax dem dikk bi xawoon jafe lool leneen li ci dokku rek mooy ndox mu bon yi faral di bàyyeekoo ci yenn euh, foos yi tax rek euh, dund ci yenn quartier yi moom jafe-jafe la lay indil jamono ji ñu ne nag faw ñu xoolaat canalisation yi bu ñu bëggee askan wi saa yu tawatee rek ñu nekk ci jàmm salaam màgget gay doxantu woon andoon ci Ababacar waa Ndakaaru ci taw bu am doole lii la tax mbeddu Dakar yu ci bari yegg fa doon lu metti ñu bari ci ñu génnoon jànkonteel ay jafe-jafe yu bari. te ñoo xam dañu nekk ci banlieue bi ñu ci ëpp liggéey juñ tey ndax ndax ndox mu bari mi mais nag lépp dañ koy sant yàlla ndax ndax ñun ñoo doon naan taw ko si dina am client moom dañuy bëgg jënd ci mais duñ mën a ñëw ndax ndox mi xama rek day day day day yàq lu bari quoi. bi ñu xëyee fii yëpp inondé fe oto yi nii dañoo laboon ci biir ndox mi. dañoo lab biir ndox bi sàmba problème mu dem daal la ñu am dañoo mujj fay sunu oto yi xaar ba ndox mi jeex ñu mën a taalaat suñu oto gannaaw problème mu assainissement bi ñu yàgg ñaxtu mbalit mi jóge ci kër yi itam doon na li jur taataa yu bare yi si mbedd mi. sept heures ba midi mënu ñëw liggéey dañoo mujj obligé xaar ndox mi jeex tàkk ñu mën a reprendre suñu job loolu daal mooy sunu problème ay canal yuy fat bi tabaski gi jàllee bi fi xar yi ñëwee moo waral mu bari saltement yi bari fi nii biñ paree ñoom dañ ko waroon euh, nettoyer génnee taq-taq yi bu ko defee bu tawee mu daal di mën a ngir saafara lu ni mel ñu ni si jot a waxal di woo kilifa yi ñu saafara bi balaa moo ëppi loxo. parce que canal yi ñooy bousee fu mu toll bu ñu bousee ndox mi du mën a dem canal yuy fat yi problème boobu la ñu am il ñu déboucher ko carrément ndox yi mën a dem mais canal yi ñooy fat état bi moo doon ndox mi mënut a dem. ndakaaru ak gox yu bëri di dund tey taataawu ndox yi jóge ci taw bi bokk na ci li ko waral défaut de canalisation suñ sukkandikoo si ñi seen xel màcc si wàll wi fan yi ñu jëm ñu ngi xaar taw bu bëri bu war a wàcc si réew mi yépp Maguette canalisation boobu sax moo jural askanu Ngor tamit tey jafe-jafe ndaxte nee nañ daal attanul ndox mi nga xam ne rek mooy bàyyeekoo ci taw bi ba tax na rek mairie ba ak marché ba moom del la def ñenn ci askan bi tamit am nañ ci ay rek. ba tax ñuy sàkku ci kilifa yi rawatina ñuy feeti ci wàllu ONAS ñu taxaw leen ndax yëf yi métti na Alassane Ba doxantu woon na fa tey àndoon ceek euh, Pape Sangone Mbaye. yéen yéen a ko gisandoo ñëpp gis nañu ko te canal bi nag li ñu ci am gën a yokk problème mooy canal bi di ndox mu nga xam ne Ngor rek lay joge canal bi dafa jóge ba Sicap Liberté romb Wakaam ñëw Ngor li ci am solo ba am ci solo mooy déchet yëpp ñun ñoo koy recevoir. te nit ñi dañu ci branché seen i kër di ko sotti ci biir canal bi ñun dëkk waa Ngor dañu maar ci recevoir ndox ñëpp fii ci Ngor mu ñuy yàqal toujours maire baa ngi nii ñu xëy marché bi kenn mënu fu dugg jaaykatu jeudi yaa ngi nii ñu jaay ah, gendarmerie boo fa demee mënoo fu dugg tout te bloqué à Ngor actuellement aujourd'hui et tout ça par rapport à ce canal la dama ne kanaal bi soit ñu trouver une solution pérenne e wala ñu seet sàkk pexe ñun nan la ñuy def. ñàkk pexe rek. ñàkk pexe rek amuñu pexe il faut ñu xuus jëm ut lu ñu yóbbu suñu njaboot loolu kese la moo ñu indi fi semence bi la ñuy jaayee semence bi la ñuy ñàkk pexe rek ku ñu mën a dimbale nag si lii jàpp jàppale ñu maire bi def na lu mu mun waaye lii ku si mën a dimbale jàppale ñu yàlla kese tax ñu jàppale ñu. bi waaw sonal nañu mais sant rek dañuy mujj rek te xam ne liggéey boog lii ñoo ànd quoi des fois mu neex des fois mu naqari ñu sante ko yàlla rek waaw. bu bëri yoon quoi di ñaan mu gaaw jóg fii canal bi ñu dimbale ñu ci rek ndox mi di dégager di dem bu tawee ñu mu jàll normal ñu dimbale ji ci rek wax gouvernement mu dimbale ji ci. sandeek mbiru taw mi nag bu weesoo ndox mu bëri bi wàcc diwaanu Kaolack Mbour jàpp Bambilor ndax gis nañ ne rek diwaan yooyu moo ëpp li mu taw. waa météo nag mel ni ñuy xamle ne rek fii ak fan yi di ñëw rawatina suba ci aljuma ji jàpp dimanche ak altine ndox mu bëri dina wàcc ci biir réew mi. loolu nag euh, la ñu xamle rek euh, ne euh, dinañ ko xaarandi ci wàllu taw. ñu wax ci leneen rawatina li nga xamante ne mooy marché Sandaga commerçant yi nag ñoom ñu ngi woote wallu ndax nee nañ foofu ñu taxawu leen gannaaw ba ñu yëkkatee kàddu rek jàpp ne fii ak fan yu neew dinañ daaneel seen marché bi nag nee nañ fow ñu taxawu leen bu ko defee ñu am ci leneen lu ñu jàpp laataa ñuy sumb boobu la liggéey dañu teewlu Djibril Diakhaté moo yor seen kàddu bokk tamit ci ànd taxawu Sénégal ci micro jaareetu fa. 5 août bii nii daal di ñu indil beneen projet boo xam ne bokkul ak bi ñu liggéeyoon ñu daal di ne sànd gi léegi nii lañ ko saytoo nii lay mel samedi ci veyu tabaski bi mooy deux jours bi dox diggante ak tabaski lañ koy tëj ah ñun nag position bi ñu ci jëloon loolu mooy benn d'accorduñ ci projet bi ngeen ñu indil. mais d'accord ñu tamit ci tëj marché bi samedi ak waxtaan bi nu seex pour war ko waxtaane marché bi nga may nu fukki fan ak juróom bu ñu tabaski ba ñëw ñu woote waat waxtaan pour xool yan xalaat la ñu mën a indi pour jàmm mën a am mu ne moom maye na fukki fan ma ñu maye nañu juróom-ñetti fan yoo xam ne daf koy teg ci 15 jours yi pour bu ñu dellu siwaatee le 30 moom day tëj marché bi ci li ko tàmbalee ci Émile Badiane bi ba ca kaw gauche droite muy wane ne léegi am na leneen sax lu ñu yokk ci lu bokkul ak lañ doon waxtaan. li nu li nu war a def def nañ ko ba pare danañ dem nag ci ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa ñu waxtaan ak ñoom. ñu wax euh, ci leneen juma ji di Masalikul Jinaan ñuy xam la ne lépp yemb na te fas nañ ko yéene daloo rek euh, ñaar fukki fan ak euh, juróom-ñaar ci weeru septembre. ci weer ab bii nañu nekk nag nee na ci teewaayu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. ñu ne nag paral bi ñu dugal ci euh, boobu la liggéey aju na ci ñaar fukki milliards ci suñu koppar loolu nag jot nañ ci amal ab CRD ngir waajal boobu la xew-xew ci teewaayu ki nga xamante ne mooy gouverneur Ndakaaru préfet ak euh, ñi fa teewaloon xalif général bi tamit ñu teewlu seen i kàddu ci micro Maguette Gaye événement bi muy ubbi teeg jumaa ji nga xam ne ñoo ngi ko jàpp le 27 ci weer wi di ñëw muy mois de septembre tombeek ajjuma nga xam ni la xalif général de mourides cheikh Mountakha ibnu cheikh Amadou Bachir moom mooy ñëwal boppam ak njabootuk sëriñ Touba gi ak kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp ak ay mbokk jullit yi nga xam ni dañuy jóge fu ne ci bitim réew ci njiitu président de la république nga xam ni moom leen invité pour ñu ñëw fekkee événement bi du patrimoine confrérique du pour murit du pour tijaan du pour xaadir kuy wax ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadan rasulullah barab bi sa barab la c'est un patrimoine de delà même du fait que ça soit un patrimoine religieux mais nekk na un patrimoine culturel nekk tamit un mobilier urbain lii nga xam ni lu ñu waral taxaw la ñun en tant que autorité régionale bu soobee yàlla ñu liggéey ko ci anam yu mu gën a rafete ak ci gaawaay bu mu gën a gaawe li nga xam ni kilifa yi nekk suñu kaw ñoom ñoo ko war a liggéey ñu jébbal leen ko bu ko defee ñoom it en relation ak ñi ñu ko war a séqal ñu liggéey ko ci anam yu mu gën a gaawe yu mu gën a rafete yu mu gën a selle mbokk yi fi lañuy yemale xibaaru euh, marax yi ci kanam tuuti Chérif Diop dina fi teew tënkal leen li gën a fës ci nasaraan ci la ngeen jëf.